jërëjëf mbokk yi ñu seetaan ci wasaare lamb Lutte TV mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal bu baax gis ngeen tey ñaari champion yi toog le 14 août bi weesu diggante Fils de la ak Gora Sock ñoom ñii ñoo bëre combat spécial bi muy Boy Sil ak euh, Moussa Dioum 2 ñu bëre drapeau Assane Fall global textile tey xale yi bëri waat nañu ñu waat même bërëb bi ñu daje woon ñu daja fa seet si Assane Assane am lu mu leen yéene. waaw ginnaaw loolu balaa mbëri di wax damay nuyu Assane bu baax ban yëg-yëg nga am ci drapeau bi bi mu commencé ba tey fi nga xamante ne fii la drapeau bi nar a yem ban yëg-yëg nga ci am ñu ngi lay nuyu baax di la siyaar. waaw ñu ngi lay fay bàjjili di nuyu waa wasaare di nuyu képp nga xam ne ngi leen di siiwal di nuyu Bukar ak di nuyu sampion bi ah Moussa di nuyu Zil baaw nga di nuyu moo la fi nekk waaw di am kontaan seen teewaay fi di am kontaan di nuyu Jem. waaw mooy it amuñ fayam dal li yëpp moom la ak yéen kon amuñ seen fay di am kontaan di am kontaan tamit aussi tamit seen teewaay bi waaw. drapeau bi moment bi ñu loo ko tëggee tuddee la ko ba moment bi làmb ji jeexee ba nga ñibbi sa kër asan Fall lan moo ko ci gën a marqué ak ban yëg-yëg la ci am. waaw ah, li ma gën a marqué dafa gën a dafa tax ma gën a xam. dolli ñan ñooy sama famille. Mm-hmm. daa gën a tax ma gën a gis mu boo xam ne nekkul parcel mm-hmm. waaw da keroog ñëwoon nga fa gis nga man gis keroog man dafa mujjee maa dépassé. Mm-hmm. ma gis waa Pikine. waa parcelle waa yëmbal géej géejawaay ah, ma gis ñoo xam képp nga xam ne maam yëg nga ko rek gis naa te woowu ma sax dama gis nga ñëw teew. mu doon loo xam ne mu marqué ma mu doon lu rëy si man. mu doon ma doon doon na loo xam ne mbégte la si man daal ba ak si njubaar waaw. macha allah am na solo dañuy njëkkee ci bo jum 2 moom mi nga xamante ne moo bëre keroog la 14 drapeau Assane Fall nga amoon yéene jël ko indi ko parcelle yàlla dogalut loolu ban yëg-yëg nga am ci bi nga bëree ci komba bi ñàkk. waaw avant tout dañ sant yàlla. di julli ci yonent bi di sant sunu ñaari waajur. waa di ñaanal ñi tëdd ci lalu hôpital yàlla fëgg seen bopp. ñi caabi féete ginnaaw. yàlla suturaal leen bañ génn. xam nga di ñaanal way dawle yëpp yàlla xaare leen àjjana di nuyu Assane di nuyu suma copain Zil ah, hmm. ah hmm. baax xam nga di nuyu booy Zil di nuyu daal ñëpp ñoom Babacar ak ñi ma àndal gaa yëpp maa leen di nuy hmm. waaw du dara na làmb moo demee noonu tey bu ma ngemboo woon ay milliards su ma ñëwoon jour boobu damay ñàkk parce que du sama bis bisu booy Zil la xam nga man foofu rek laa ko teg liggéey nañ li ñu war a liggéey xam nga lu waroon ci làmb ji yëpp def nañ ko mais mooy li ma wax rek bis booy daanu moom cuune ngay doon xam nga rek di ko ñaanal nag ndam li jikko parce que ñun ñëpp ay doomu Sénégal lañ te ñoo bokk même métier bi ñuy def muy làmb kon bu mu ñaaw quoi bëre nañ ba pare dañuy sekk jàmm waaw bu ñu waree bërewaat bërewaat xam nga affaire yooyu man foofu laa ko teg waaw. seen diggante ñaar làmb ji jeex na. Euh, gis naa ni sax bi ngeen gisante yéen ñaar kenn nanguwul siggi xool sa morom ci kersa lan la doon. waaw man na naturel nii laa mel man moom nii la ma yàlla bindee mbër yi ma bëreel yëpp du ma la dépassé du ma la saaga xam nga bu dee na cadre neexal pour signature bi neex dama koy def mais man naturel nii laa mel du ma siggi xool nit affaire yooyu noonu xam nga rek mooy loolu mais moom tamit Baye Fall la xam nga rek nit ku yaru la xam nga nit moom boo ko fréquenté wala mënoo ko xam. affaire yooyu noonu waaw noonu la demee. am na solo dinaa ñëw ci yéen ñaar ku ci nekk dafa war a analyser làmb ji ku nekk wax ban erreur la def ba adversaire am daan ko waaye kii tamit lan la def ba daan moroomam tey daan nga jël drapeau assan Fall Global Textile ñëw këram indil ko drapo bi sargal ko ci delloo ko njukkal ñu ngi lay féliciter mais ban yëg-yëg nga ci am. waaw dañuy sant yàlla bu baax julli ci yonent bi sant suñu ñaari waajur di wax jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba di sant sama sëriñ Serigne Cheikh Fall Mbawar di sant suma yaay bu baax waa Pikine ak ñi ma àndal ñëpp mm-hmm. waaw drapeau Assane Fall moom jël ko loolu mbégte la parce que yaakaar naa jël drapeau rek kontaan la quoi mm-hmm. waaw dama koy sant yàlla bu baax tamit moom moom mu doon taalibe Serigne Fallou mm-hmm. comprendre nga doon murid pur kon ñun bu ñu jëlee drapeau daf ñuy gën a neex suñu xol yi gën a sedd waaw di sant bu baax a baax a baax. sa adversaire bi mu dugg see léegi daanaka mën naa ne li mu naan sax yow yaa ko xelli jox ko ko seen diggante loolu image bu rafet boobu lum la mën a lum la mën a def. waa ñun moom ay Baye Fall lañ ñun moom amuñu problème boobu parce que xam nga liggéey la woon def nañ ko pare nañ jeex na après dañuy sekk waaw jàmm ji ñu sekkoon moom la ñuy continuer mm. parce que sport la rek sport moom bu defarul warul yàq. Mm. moom baay Fall la doon borom baax parce que boo xoolee làmb ci waxante wuñ lu ñaaw comprendre nga scientifique bi sax booy xool duñu sigg di xoolante bu baax kon waa sant yàlla daal di ko encouragé bu baax a baax a baax di ko wax làmb noonu la. lan nga koy waxaat message waaw waaw non mu ci yoon bi mu ci yoon bi amul leneen loo xam ne xanaa dañ koy ñaanal rek mais mu ngi ci yoon bi mm-hmm. waaw di ñaan yàlla defal ko jàmm rek. Mm-hmm. jum miinoon na miin na pikin mais miin na aussi kër ka euh, buy bëreeg yow ci moment boobu. yooyu noonu yëpp dañ koy sóoraale wala doo sóoraale. no non non duñ ko sóoraale non duñ ko sóoraale mais l'essentiel yi war ci làmb lépp lépp dañ koy def. Mm-hmm. waaw parce que yaakaar naa loo sóoraale moom mën na laa gaañ quoi. Mm-hmm. waaw sóoraale wuñ ci dara vraiment wax dëgg yàlla. Mm-hmm. sóoraale nañ yaram nag quoi waaw ci làmb ci yar gi mu am yëpp ñu ngi ko doon sóoraale parce que xam rek nit moom maanaam sa naataangoo chaque jour rek ak ni muy ñëwee da nga ko war a jox cër ba mu moom. waaw wax dëgg yàlla te moom lu ñu ko jox ba mu mat sëkk. kon dañ koy sant yàlla ba pare di ko bëggee moom waaw Assane moom it ñu koy bëggee bu baax di ko a gudd fan li mu bëgg yàlla defal ko ci doole Cheikh Fall. ma jaajëfal bu baax ndax parrain bi dafa mel ni am na lu mu leen de lu mu leen dencal yéen ñaar mais damay njëkkee ci yéen ñaar kan laa jox la njëkkee bàyyi njëkkee ci jum ma ñëw ci jum jum tey combat bi bi dafa sifflé rek yéen ñaar ngeen ngeen la léewtoo yéen ñaar mën nga ma wax ban erreur nga def ba ñàkk sa kom waaw erreur bi ma def nag lenn la rek. Mm-hmm. mooy bi arbitre sifflé moom dox na gëdd ma quoi. Mm-hmm. ma xaw a mel ni lu koy feree na yooyu di ko sànni ku boobu sax dalul. Mm-hmm. xam nga yooyu yëpp maa bëgg rek mu taxaw parce que man tamit dama ko bëggoon songu ci. ci suuf parce que ñëpp dañ yaakaar ni xeex laa woon. xam nga affaire yooyu mais man dama ko bëggoon sàcc pour song ci suuf. affaire yooyu far lool nag antuwul moom na bi muy ñëwaat nag dafa mépp ni may demee di kii rek mu daw ut fu mu jàpp affaire yooyu léegi man bi ma jàppee nag. sama loxo bi laa doon génnee pour charger ko ñaari hypercule léegi na bi sama loxo bi di jóg moom dugal na cabaxal bi ba xàttar bi ma fi ma yegg nag sori na waa hmm. pare man maa ko sut te moom moo ma gën a suufee hmm. boobu dugg na sama yaram bu baax affaire yooyu la tànk nag may di ko tuur ci suuf hmm. sama dóor fees daan na ma jël bu set wicc bu amul benn werante dégg yàlla boobu dama gis benn xarañte bu xale bi wane mooy daf la dóor caxabal ba ma yaakaar day caxabal mu mel ni caxabal bi daf ko boole ak xattar bi. waaw mais na caxabal bi ñu bari amul temps dare hmm. moom bi mu dugalee cabaxal bi rek. laataaka man may siggi hmm. moom tourné naag man ak xattar bi bi maanaam action bi moo gaaw. Hmm. xam nga affaire yooyu te su man man tamit sama xel demul woon ci xattar bi parce que man maa ngi doon calculer. mu cabaxal ma ma dëru. écarter samay tànk. mais temps boobu noonu yëpp. moom mayuma ko. waaw moom action bi da cee xaru quoi. dafa ne lii dama koy def for noonu la demee. léegi nga waaw. li ma njëkk xalaat nag euh, metti na trop parce que ku daanu di nga am loola metti hmm. mais dama sant yàlla quoi après. Hmm. xam nga rek affaire yooyu noonu mais gëj bari bi tamit génn ci quoi. Hmm. parce que tamit dafa neexul ngay ne matin soir. man matuma cent dix kilos hmm. su ma matee cent kilos ci lay yem hmm. mais kuñ la woo ne jum de nga jël avance bi toog deux jours delloo ko hmm. xam nga man dama xamul lan la quoi bare na sunu mbokku mbër yi tamit war nañ bàyyi loolu nit boo ko xasee ba jël rek amal sa ngor comme moom ni mu def jël na combat bi ànd ceeg ay mbokkam xam nga affaire yooyu noonu mais kuñ ne jum de nga ne noo du ma ko jël maa ko raw xama parce que ñoom foofu rek lañ koy teg ay maako raw. Mm-hmm. doom nañ moo waxal ñu moom ñu ko sut fuuf. Mm-hmm. mais après dañuy dem ba ci biir dañuy bañ. loolu dafa war a jeex ci làmb ñun ay xale lañ. Mm-hmm. bu heure bëre jotee bu ñu làmb boolee nañ bëre. xam nga làmb ji ñii ñooy daan rek dem ñii ci topp toppaat ci leneen dabu. xam nga xam nga ñan ñooy am ci xaalis làmb. mooy ñoom Modou loo Balla gay Eumeu Sène. ñoo ñoo lekk xaalisu làmb. mais ñun bu ñu fayee ko ba fayee ko bu ma tey un million ci lay yem. kon nag ñun pour ñu àgg ci kaw ñun ñoo war mën a bëri suñu biir xam nga làmb amul affaire la raw ku la làmb booleel la bëral ak moom te Boy Jules bu ma bëriwul ak woon moom ñu ñaar ñëpp dañuy def année balance xam nga te man loolu laa doom daw parce que toog naa cinquant ñu may doxal komba xam nga may bañ a année balançaat nag affaire yooyu noonu di sant na Papa Sow bu baax parce que su ma bëree yàlla ak moom moo tax. Mm. combat bi moo ko dox moo ko taxawal affaire yooyu noonu. Mm. di sant Jamaïcain di sant waa parcelle 1 bu 26 di jéggulu sama supporter yëpp. Mm. waaw. damay ñëwaat ñu ay xale lañ duñ bàyyeeku. bu ñu arrêté rek dañuy doon ay ngaaka xam lu tax. dañ cee dugg ba pare te ñi ñu bëgg ñu ngi taxaw di sonn. am na ñoo xam sa defet rek la ñuy xaar. kon da nga war a rey sa bopp man dama daan daan muy neex. dama mm. gëj a bëri mais ci ay victoire laa jóge dama tegale ay victoire. Mm. xam nga kon su ma daanoo damay jàpp ni des na yeneen défaite yuy ñëw ak yeneen victoire. nit lu ñëw rek sante ko yàlla. voilà. am na solo li may ñëwaat ci Boy Boy Jules combat bi nan nga ko abordé nan nga bëree ba daan ki nga xamante ne mooy jumta. waaw combat bi moom ni ma bëree moom wax dëgg yàlla dañ ma ko bëreloo rek. waaw parce que bi combat bi taxawee sama booy naan Dioum de day xeex. comprendre nga sama copain Pao ma xeex si day songu mais moom bi wax xam naa ne lii muy wax gëmu ko jour boobu. parce que là moom stratégie la rek. comprendre nga léetoo nañ ma gëdd ko mu coxaas ma benn ko ma esquivé ko fayu comprendre nga. dugg génnaat dóor daw jàpp ko en sonné action bi. parce que dama gis tànk bi sori na ma. ma def benn latéral mu jege ma ma caxabal ko xàttar bi ko. caxabal xàttar parce que dama ko wér dama ko wér caxabal wéeru ko comprendre nga muy arrière instant boobu tànk yi taxawul. parce que mu ngi riposté pour caxabal bi. Mhm. su ma ko xàttar bi rek du du taxaw bu baax. Mhm. loolu la. nga xàttar bi nga waaw waaw bi ma ko daanee waaw parce que ñi ma àndaloon maanaam ñi ma jàppale ci combat bi ak ñi ma ñi topp sama ginnaaw samay supporters. Mm. dañoo sonn ci combat bi trop. loolu dong la tamit ak yéene moo waaw te tamit stade bi Pikine la woon làmb ci Pikine la woon. Mm. waaw dañ koy sant yàlla bu baax du suñu mënee suñu dara. Mm. waaw ndogalu suñu borom la moo ñu ko defal parce que yàgg nañoo di daanu. kon dañ koy sant yàlla bu baax macha allah. ñu ngi lay dégg nga ñaari xale yi li ñu wax lan ngay tàggatoo ak yëg-yëg bi. ban yëg-yëg nga am ñaari xale yu toog nii sa diggante te keroog bi ngay ñëw ci digg géew bi da leen fekk ñu simmee ko takk seen i jaaj. waaw xanaa lu dul euh, gën a kontaan. waaw di xam ne ay ndaw lañ ñun ñoo bokk même génération. dañuy mayante xaalis. te jii boo demee ba nga xam ne kii lum naan kii ko xel yi nga xam ne c'est la famille. dañuy mayante contrat la contrat bi jàllee ku ne day jàll si leneen ñuy ñaan jum boo amatee combat suñu borom. waaw may ko ay ndami ndam ci barke alxuraan karim waaw ñuy ñaan suñu frère bi tamit ba amatee combat zil yàlla may la ay ndami ndam ndam ci barke alxuraan karim ñu leen di dégg si làmb fu ne waaw ñu leen di dégg si lu ne ngeen am lu ne si làmb loolu ñu la koy ñaanal ci barke alxuraan karim waaw. loo ci bëggoon doole. waaw li ma ci mooy kii jëmm ji. Hmm. kii man bi ma koy xam. sam benn grand mukuro mooy sànq mi ngi ko doom wax. may ànd ak moom di dem entraînement affaire yooyu noonu moom moo tax ma xam ko mais bi ma koy xam mun naa ne amagul sa place. xam nga boobu mi ngi yor taabulam di jaay. affaire yooyu noonu. xam nga dañ koy ñaanal rek bikitam yi nekk ay bikiti bikit. xam nga moo xam li mu bëgg parce que xale la te yeneen na mbëru Parcelles yi. xam nga maa ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla defal jàmm. ak yow tamit di ko ñaanal ñëpp ñu nekk ci làmb waaw moo loolu merci waay. noonu la bàyyi nga tàggoo. waaw dañuy sant yàlla rek ci lu jëlante bi xam nga di sant waa Pikine yëpp waaw di leen wax ni kontaan nañ ci ci jàppale bi. comprendre nga di encourager sunu adversaire Moussa Dioum bu amaatee combat bu dul waa Pikine yàlla defal ko ndam. da ngay duggaat parcelle. <laughs> man maa ngi fépp. non ba xam da ngay duggaat parce que dër bi parcelle Pikine warul jeex. non man pare. yéen a yóbbu yéen yóbbu victoire bi keroog. bu boole rek bu dee waa parcelle laa war a bëri incha allah damay duggaat parcelle bu ko yàlla dégg nga nee na avance bi ngi fi de la. man pare naa pour ñëpp pare naa pour ñëpp man bàyyiwuma kenn waaw comprendre nga. <laughs> Mbacke nee na boo boo d'accord nga bëre ci Siteu Papa Sow. man man aw ma lu may bañ ci làmb man xam lu ma am ci làmb man sama combat Moussa Dioum sax dañ ne ma yaa Moussa may bëre. Hmm. waaw man la ñu ne ma waaw man la waa baax na dem entraîné ji. bu ñu jaaree fi ñu war a jaar bare. bu fa jaaree man pare naa pour bëre ñëpp parce que gënuma leen comprendre nga waaw gënuma leen ay doomu aadama lañ kon ñun mais kon li ma lay wax rek ñun ay ay baafaal la ñun man taal bi suñu chefal mboor la. waaw man aw ma problème boobu noonu. waaw damay sandaat bu baax waa Pikine di sandaat su may ay ak ñi si jàpp ñëpp ak ñi ma àndal. waaw tey nag du ma wax sax naan war maa sant parce que bésu Assane la waaw moom dañ koy ñaanal yàlla defal ko jàmm parce que bi ñu ñëwee gis nañ ak taalibe man bi ma dugg see wax dëgg yàlla gis fi kurus ak siyaara man sama xol daa sedd barke Serigne Touba billaahi parce que tamit xam nga jàmbaar rek moom mën a teg loolu fii bari na ñoo xam ne boo duggoon seen nekk ay butéel nga fay fekk doo fekk siyaare ak ak ak kurus <laughs> waaw bu ñëw fekk fa ay ay nataal yu caa yu taaru waaw kon dañ koy ñaanal yàlla defal ko jàmm ñu bàyyi ko Serigne Fallou mi mu yaakaar comprendre nga waaw di sandal bu baax di sandaat promoteur bi di ko ñaanal jàmm moom it waaw jaa ngeen jëf kontaan nañ baax a solo ñu ngi leen di jaajëfal bu baax.